الحمد لله الكريم سلمنا على استغاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي sunu waxtaanu tey moom ci yanki yëf la war a jëm benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla ñaareel bi mooy jaayante ak sa sarti jaayante ñetteel bi mooy jub ñeenteel bi itam mooy léggéey gëm nag dafay def loo xam ne fu mu nekk ci yow tey dëgg ci yow ñàkk a teg sa bët ci lëf du tee nga mën koo waat ci waatukaay yépp gëm nag am na juróom yoo xam ne bisu ne daanoon ko di seere sax waaye dafa soxla waa juróom yooyu nu man mën koo waat gëm ko gëm gu wër ngeen ku ci nattable lenn rek wala nga sikki sàkk ci lenn gëm moom amatoo ko juróom yi mooy lan wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun wa anna al jannata xaqun wa anna naara xaqun wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha wa anna allaha yabaasu man fil xubóori juróom yii moom loo ci sikki sàkka rek amatoo gëm boo ko sàr boo sàmmee sa gëm nag ba gëm di wér ba noppi nag li ab jullit war a daan ngay doonu jullit li jullit war a def nag am la mu bëgg nag mooy xad aflaha al mu'minun allasiina hum fi salaatihim xaasihoona wallasiina hum ani laxwi muhriloona wallasiina hum li sakkaati faahiloona wallasiina hum li furuujihim xaafisoona ba yegg ci allasiina yarisoona al firdawsa hum fiihaa xaalidoona loolu mooy sartu ab jullit ci boppam boo matalee loolu rafetal ko sa jullit mat na sa gëm wér na sëriñ Tuubaa nag bu dee wax ne aw ab tariixa dama fekk yoon wi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farka yi man ko ji ko ba mu set wecc defaraat ko ba mu leer nañ wax ni ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngi yoon woowu mooy yooyu yoonu jaayante ngir kat saaba yi ñoom ba ba ñu saxee ci lii xam ne mooy mooy tax mooy sar ci gëm bu mu wér cim dañoo wëlpatiku ko wax ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko li nu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow jox la sunuy bakkan jox la sunuy alal nga warlu ne daanu dem ajjan loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tontu ci loolu sunu boroom a amee tontu li sunu boroom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna wax dan alihi xaqan fi tawréeti wal injiili wal quraan yi daal cay teg ne nag wa man awfa bi ahdihi min allahi lool kon dugal nañu ci biir daal di daal door a wax nag ne fastabsiroo bi bañitumu li si bihi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 jaayante lu am la lu wér la jaayante nañu ak sëñ Tuubaa kon nanu xam ne moo am suñu bakkan moo am suñu alal am nañu taw feex nag am nañu taw feex nag akum noflaay ci kaw nag bi nga xamante ne bakkan yi moom laajut deret yi te bu laajee deret yi bis bu ne sotti mu sotti ko waaye nag ginnaaw ñaq yi rek la laaj ak alal ji sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko moom loolu la ñuy wóor jëm ma ñëw ci wàllu ji jub moom dafay loo xam ne dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koo defalul kenn ku ne sa bopp rek nga koy defal alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonent bi waaye ci nit ñi rek la jëm inaa anzalnaa alayka alkitaaba linnaasi bil haqqi daal ciy teg ne fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fa innamaa yadillu alayha wa maa anta alayhim bi wakiil kon nag nan góorgóorlu ci jub te xam ne sunu bopp la ñuy jubal bu nu bañee jubit sunu bopp rek la ñu koy teg kon jub rek am njëriñ lu del ci liggéey nag liggéey moom day loo xam ne moo yor lépp ku ne la ngay liggéey ci sa lépp di bàyyi ko la ngay liggéeyal yàlla la ngay liggéeyal addina la ngay liggéeyal keneen ñi nga xam ne sax yëgguñu ci di liggéeyal yàlla seen bopp la ñuy liggéeyal kenn ku ci ne sab adresse mooy la ngay liggéeyee ak fa ngay liggéeyee ak nag ak lu mu doon kon nag liggéey rek am solo nan góorgóorlu nag ci liggéey te xam ne liggéey bi kenn ku ne la la yàlla féete muy sa liggéey nga sellal ko jubal ko rafetal ko moo ciy sa ndimbal nun ñi nga xam ne ah, bay yooyu mooy suñu liggéey naan fas yéene li yàlla santaane ci mbay ñu di ko def dina sa asaka di def lu leer ci suñu liggéey ñi def leneen itam ñu sàmm loolu loolu bu nu ko defee suñu tey dana leer suñu ëllëg dana leer jërë ngeen jëf maa ngi dellu nag di ñaan yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sëñ Touba mi nu wéeru ci moom te yaakaaruñu dara lu dul moom mu yéwénal suñu biir addina yéwénal suñu biir àllaaxira te àtte ni ci yërmandeem ak ndimbalam nag te bañ noo àtte ci sunu néew doole ak sunu càggante yàlla mi nga xam ne moo nu moom nu di suñu borom ak sëñ Touba mi nga xam ne dana ko yaakaar fekk ci moom ak suñu diggante moom yooyu rek lañ ko war a waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi nga xam ne teew ngeen fi yëpp yéen bokki taalibi yëpp yéen bokki taalibi yi murit yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant kilifa yi diine yëpp yëpp amul ràññeele amul xaj ak seen ñëpp maa ngi leen di sant ndax ku ci nekk rek say ndaw teew na fi yu mati ndaw yu ma won ne jàppale nga nu ci li nu ne ba tax na li ci nekk ci man ci ak cant mënuma ko sax a wax ñi nga xam ne ay kilifa la ñuy tey doon kilifa yi diine te seeni ndaw mënuñu fee teew wa mënuñu fee teew waaye seeni ndaw teew na fi yépp nañu xam ne ameel nañ leenu cant ameel nañ leenu ngërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla boole nu dimbali gannaaw loolu nag yéen bokki taalib yi mënuñu leen waxtaan yéen waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du ne lii la jublu woon a wax ba lii la lii la faso woon a wax ba lii wax ji dama koy waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp ma di leen yëgal ne te tabaski ga wax naa leen di leen nun ay morit lañu te duñu yam dong sax ci doon ay morit ay saarix la ñuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it tuubaa gii da koo sos jële ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee ne Touba li ab di muridin saadixin texe ñeel la bépp murit boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murid di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yépp def ko te benn bu ngeen ci defan mu duñu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a waat ne ay saadix ngeen danaa mën a war ne li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xidmatin la wax aw bi hubbin la wax aw adiyaati la wax te yooyu yépp maase ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la man lépp kon nag seenu saadix moom mën naa koo seere fu ne ma di leen yëgal nag ni leen nun sëriñ Touba la nu am te yaakaar yaakaari benn murit bu jàll sëriñ tuuba amul man naa daal fu ne di bërëmu waaye bu yegg see fi sëriñ Touba fi la yem kon nag ngeen yëg ne euh, sëriñ Touba moom nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da koy wax ne ko jébbal naa la sa sama bopp àddina jébbal naa la ko àllaaxira moom it mu wax ne képp koo xam ne ñëw nga fi man te àddina andi fi jaaxaloo ma ndax yàlla jox na ma ba mu doy sëg te soxlawu ma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne andi na la fi loo ci soxla mënal naa la ko te dinaa la ko defal wax ne kenn rek moo mën a jaaxal koo xam ne xaw na ma koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def naa bëriwul kon nag ma di leen yëgal ni la ku yaakaar nit jébbal ko sa bopp àddina ak àllaxira mu mënal la lu ne tey ak ëllëg ah góor ngaa góorgóorlu ci xam ne jébbal googu nga ko jébbal sa bopp mu nangul la ko doyoon na sëkk teraanga ci seen diggante doyoon na am sax seen diggante bu wëlbatikoo nag kenn ci nun ko ne mu teral ko teraanga joo xam ne gor ya daa wax ni koo ku leen teral ñu ne yàlla na nu fekk sa bis ba jaay ci sunu bakkan fukkeel ba te relu monsieur leen koo teral mu teral nu ko kon nag te am bis bi war a ñëw te ñëwagul war na noo baxal bis bi di ci góorgóorlu te dara mënu koo tee ñëw te bu nu wéyee ci diggalam di di ko sàmm li muy tere nu di ko sàmm bu nu ci yeggeen bisum ndam rek lay doon ci léegi nag man day def bu ma waxee ci kaw ñu ne day xuloo bu ma waxee li nu war a def ñu ne daa mer ma di leen xamal nag ni leen xuloo ak mer dara du ko ci def feeg may dund ndax xuloo moom li koy waral xam naa ko ñaar ñu déggoo di ko rekkee xuloo te man du ma xuloog buur du ma xuloog baadoola du xuloog mag du xuloog ndaw njëriñ yi war a tax a xuloo moom du jaar sama digg ak kenn xëccoo njëriñ wala xëccoo daraja moom doo ngay téye déggoo ba wax tax di xuloo te waat na ci yàlla ne du ko def ak kenn meritam bu ngeen gisee ne jàppee ne mer naa déedéet damaa am lu ma naqari mer moom dara mënu ma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma ta faj loolu it daf may naqari ngir la ma naqari yàlla dong waaye nag du tee danaa xam ne inna minal mujrimina muntaqimuuna yàlla bi mu ko waxee boo gisee kuy def loo xam ne lii neexul yàlla it bu la naqaree war nga ko war ngaa mën a gàttal naqar wa yëgul fen man du ma mer du ma xuloo dama bëgg dal loolu leer leen ñu wóor leen cëng ni sëñ Tuubaa mi ñu yaakaar lu dul moom diiru li mu fi ne topp yàlla la ñuy digal jaamu yàlla la ñuy digal liggéey la ñuy digal jàpp sunu njaambur la ñuy digal ak jub la ñuy digal ku yaakaaru du kenn nag la mu digle da koy sàmm te fas yéene di ko def nan góor góorlu ci sàmm ndigal yi sëñ Tuubaa yi moo nuy may ndamal tey moo nuy may ndamal ëllëg man nag maa ngi wëlbatiku ci kattanam ak darajaam di ñaan ci kattanu yàlla mi nga xam ne moom moom lépp ci soxlawu ci lenn mu defal nu yërmande defal nu ndimbal naataanga moom bëgg nañu ko lool nu ko ñaan waaye naataanga doo boo ma joo ma sa gis rek bekkoore ca topp naataanga joo ma daa mujj wow koŋ xéewal rek a mat a ñaan yàlla na nu ko yàlla defal defal ko réew mi defal ko mboolem jullit ñi alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xad sahani liwatani bi nafa ma anfani